bon euh, ce n'est pas une surprise ah parce que boo xoolee pronostic yi ñaar ñoo nekkoon en tête Boun Abdallah Dionne ak ki nga xam ne moo de Amadou Ba ñoom ñaar ñoo nekkoon euh, donc en pole position pour mën a jël jëf yi euh, parce que en un certain moment sax boo seetloo avant que ñuy annoncer la venue de Boun Abdallah Dionne c'était Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba avant que le président lui-même ne demande à Boun Abdallah Dionne de de venir et d'être candidat maa la ko wax. waaw may ma rek ma terminé may ma rek ma terminé maa maa ko. monsieur le ministre monsieur ministre may ma dem rek. <laughs> Boun Abdallah Dionne bi ñu koy woo ma nga woon France di jaay livre am donc c'est le président qui l'a appelé mën naa la wax loolu. mais le problème c'est pas c'est pas le plus important c'est pas parce que dañ ko woo que moom moo waroon a jàll wala Amadou moo woo non non dama la bëgg a expliquer rek ñoom ñaar. ñoo nekkoon en pole position maintenant ñu bëri jàppoon nañ ne Amadou Ba war na ko mën a nekk ñenn ñi jàpp aussi bi nga xam ne bu am Abdoulaye Dione dugg na dans la course que mën naa bokk moins que les autres parce que ay Amadou Abdoulaye Daouda Diallo et tout ça mosoo gis Abdoulaye Daouda Diallo mu toog ci plateau di défendre euh, bariwul bu amee tam bariwul donc politiquement il était un peu réservé un peu euh, vraiment un un un un un un de l'État qui est là qui fait son travail ki fait son job mais politiquement à part sa base bi nga xam ne gagné na ko ba nekk fa maire euh, amul feneen foo xam ne da ko fa daan gis muy muy yëngu donc ñi nga xam ne ñoo taxawoon. ça s'explique peut-être par le fait waaw moom jàppoon na ne tant que Macky Sall am na ambition. moom amul ambition non non ne nee wane wuñu ambition non non non ce n'est pas ce n'est pas une excuse ni une ah. explication dama ne. ñële wane wu ñu ambition. Amadou Wa aussi politiquement il ne s'est jamais activé. moom laa lay wax pour wane son ambition. non non pas ambition je parle pas d'ambition je parle de défendre le projet politique du président Macky Sall loolu laa wax. ñi daan dem ci plateau yi di défendre le projet politique de Macky Sall bi ko Boun Abdallah Dionne nekkee premier ministre gis nga ni mu doon def euh, Ba gis nga li mu doon liggéey donc ils ont toujours porté la basoche di défendre ki nga xam ne mooy président moins que les autres les autres l'ont moins fait à mon ñaar ñooñu nekkoon en pole position pour man ku ci jàll baax na pour Benno Bokk Yaakaar maintenant nañ ñëw ci dissidence yi dissidence bi gis que li nga gis nii nit ñi di dem ñu commencé annoncé ay Aliou nee na bàyyi na keneen peut-être dina bàyyi pareegul ah tu vas entendre d'autres yoo xam ne dinañ ne ñoom aussi danañ jéem a ber daara ñaari affaire la am foofu ñooñu daa fekkoon ñu bëgg a dem bu yàgg dañ doon xaar ñu désigner candidature qui leur servira de prétexte pour pouvoir partir bañ a jóg rek euh, créer seen langue ne dem nañu donc dañoo buggoon a xaar ba ñu désigner le candidat à partir de ce moment ils ont le prétexte de dire je ne suis pas d'accord sur le choix et ils ont la latitude de dire maintenant bon je trace ma voie mais dafa fekkoon ñoom ñu bëgga a dem yaa ngi dégg bu wax deuxième chose bi mooy benn Bokk Yaakaar c'est un appareil ba tey ñi ngay dégg ñu naan ñu ngi dem c'est au sein de l'APR wala bokk les structures satellitaires ko ñoo xam ne ils sont affiliés à l'APR bokk globalement dans Benno Bokk Yaakaar mais dégg goo peut-être à part Alioune Sarr ci nga xam ne ñooy parti yi soutenir ñi nga xam ne ñoom ñooy waa le pré euh, le président Macky Sall autour de Benno Bokk Yaakaar mais parti yooyu formation politique yi composé Benno Bokk Yaakaar dégg goo kenn jóg ci di wax ne man kat d'accorduma ci choix bi à part ñi nga xam ne defoon nañu comme Aliou Sarr déjà euh, wane woon nañ seen prétention que ñoom bëgg nañoo dem Ablaye Wilane bon subsidiairement il l'a fait aussi mais li am solo daal mooy fi mu toll nii ku téye bi tu plus de chance ku téye appareil Benno Bokk Yaakaar parce que il faut pas considérer parce que ñi nga xam ne ñoo taxaw fii yëpp di yëngatu naan bëgg dañoo nekkoon candidat candidat à la candidate tous ces gens là amul kenn ku ci am vraiment une représentation nationale amul ku ko fi am premier ministre moo la ko jox y compris Amadou Ba akay ñë waaw non non dama ne ku poste premier ministre moo la ko ah, jox sa poste bi nga yor premier ministre wala nga nekk un ministre du gouvernement moo la permettre nga mën a am cette euh, stature yaakaar ne yow politiquement tu as une assise une assiette électorale au plan national amul ku ko ci am amul y en a la preuve bi ñu demee élection législative gis nga ni mu demee donc il faut savoir raison garder am na ci ñoo xam ne seen patelin ki est un gros village lañ leen dóor boo xam ne bu ñu doon xool sax waru mat commune ñu gagné la fa nga am prétention nationale foo faut qu'on arrête c'est pourquoi quand Samuel Sarr di parrainage bi sax la ñu waroon utiliser <laughs> pour mu nekk euh, li nga xam ne moom mooy euh, les primaires mais c'est c'est une bonne idée parce que tey ku ci dem mënoo am parrainage xanaa tu savoir raison garder c'est aussi simple que ça donc li ñu war a jàpp aujourd'hui mooy que le président a fait son choix ñoom ñoo ko joxoon mandat ne ko choisiral bu dee mandat boobu d'accord ci da waroon teel a génn teelu loo génn ba président taxaw parce que président à un certain moment il a failli jeter l'éponge parce que benn moment bi ñu ko ku nekk di déclarer candidature mais xaw naa bàyyi ba ne leen je vais proposer des primaires primaires yoo xam ne ce sont les grands électeurs mooy conseil départemental euh, les conseillers donc euh, voilà ak euh, au conseil de la république les députés les maires et cetera ñooñu ñoo naroon voté ñu xam ne peut-être que loolu peut-être mën na indi. ay ay influence négative parce que am na ñoo xam ne yor nañu xaalis mën nañoo jënd ay voix ñu ne voix boobu nañ ko bàyyi boobu moom dooma wedd yaa ngi dégg ñu ne nañ bàyyi boobu voix boobu baaxul mu dellu siwaat ci li nga xam ne moom mooy la proposition ante mooy def candidature de consensus ñu ne ko tànnal ñu le président Macky tànn na léegi waa Benno Bokk Yaakaar xam na ñu war a def aujourd'hui d'abord sax moom Amadou Ba li mu war a def mooy dajale ñëpp ku ko bëgg ku ko bañ ak ku frustré wu ku frustré waru bàyyi liggéey boobu ak président Macky moom ci boppam il doit s'engager won ne léegi xëccoo bi jeex na parce que l'époque de de de de de de la personnification dafa jeex fi mu toll nii fi ñu toll ci benn Bokk Yaakaar mooy équipe Amadou Ba doit mettre en place une équipe warul toog en tant que chef wala benn leader au-dessus des autres parce que côté légitimité amul lu mu ëppalee ñeneen ñi donc lim mën a def seulement c'est de créer une équipe équipe boobu nag bu ci ñeneen ñi gisee seen bopp mën nañoo bokk même bu doon frustré nañ sax mën nañoo bokk ci équipe bi donc il faut aller dans cet esprit d'équipe et non de cavalier solitaire en disant man la ñu tànn je suis au-dessus des autres donc man maay gagner déedéet il doit mettre en place une équipe et déjà man li ma koy xaar mooy dès demain moom Amadou Ba acte yi muy njëkk a posé mooy waxtaan ak ñëpp ba pare nag ñëpp mu boole leen ci équipe bi nga xam ne moom lay demal campagne aussi bien les alliés que ñu nekk ci biir APR mu wow ñëpp ñu daje autour de la de la démission de Aly Ngouille waaw moom foofu laa jëm donc léegi équipe boobu bu ko taxawalee ci lay mën a moom vraiment am soutien bi nga xam ne moom la bëgg mais parce que du taxaw ci kaw ne kaay leen topp ma non loolu mënul nekk li mën a nekk mooy kaale ñu dem c'est ça c'est la seule possibilité la seule issue pour Amadou Ba mu réussir vraiment sa mission mooy mu téye ñépp alliés yi bokk Benno Bokk Yaakaar même les sympathisants de Benno Bokk Yaakaar te bokkuñu Benno Bokk Yaakaar sax daf leen war a woo autour de lui ñu def une équipe xool comment ab maintenant nag ça c'est l'offre programmatique comment maintenant parler au Sénégalais li leen naqari woon ci Macky Sall ñu indi yeneen offre yeneen proposition yoo xam ne ça va combler les vides parce que tout ne pas parfait li nga xam ne jaguloon moom ci boppam mu wax ak sénégalais won leen ne bu ma ñëwee lii dinaa ko jagal parce que nguur Macky Sall am na lu jag xëy na am na lu jagul la jagul moom fi ñu koy xaar du mu taxaw di wax ne Macky Sall moo fi def lii ça sénégalais yi gis nañ ko donc s'il doit battre campagne sur juste les réalisations de Macky Sall mais va faire euh, dans la choucroute ce qu'il doit faire c'est d'essayer d'avancer et de faire de nouvelle offres programmatique wone ne franchement Macky Sall fii la jëlee woon réew mi indi na ko fii waaye ñun kat suñu équipe bii pour na pas toujours personnifier la chose ou personnaliser ne suñu équipe bii dañ koy jël fii lii lañ leen di proposer yéen Sénégalais yi espoir bi renaître Sénégalais yi ne ah wax dëgg yàlla ñun de am na ñoo xam ne merewoon nañ président Macky Sall waaye gis nañ ne xëy na Amadou Ba bu ñëwee lañ ko merewoon dañ ko joyante